ketchup. ah ok mais comment il di déguisé Diaw <laughs> bo c'est un artiste hors dinaa ci ñëw ci kanam. mais kii ngay gis. borom lel bi bii. waaju baax xaw ma. waaju baax. kii moom. kii mooy Mor Kamb. Hmm. gis nga kii. dadaa nekk sama kër guddi ak bëccëg dem naa ba jëlal leen appartement boo xam ne ñoom fa la ñuy ne di répété. moom Mor Kamb mi maa ko formé de toute pièce. chaque jour mu gis sama kër. ba am na film bu ma ko dugaloon muy l'héritage film boobu ba léegi sax génnul mais Mor Kamb mii def naa ci moom loo xam ne waroon na fu mu toog ci tele tudd fa sama tur ndax kii lu ma def ci keneen def naa ko ci moom waaye nag àdduna moo tëdde noonu ma di ko xaar nag rek ba tey te xam ne tôt ou tard dina dellu siwaat ci école bi kon incha allahu rabbi Mor Kamb saa yoo décidé aussi booy ñëw ci école bi maa ngi lay xaar tey soo ma doon wax ci Diaw Ketchup phénomène Abba phénomène waaju baax tey yéen bi ngeen doon théâtre ak tey comédie ñoom comédie bi ñu indi c'est quoi la différence entre les deux le théâtre et la comédie euh, aucune différence parce que euh, qui dit théâtre ouais. dit comédie ok parce que quand je prends l'exemple de Abba ouais. Abba fi mu fëlee mhm. ma neex ba duma ko expliquer parce que Abba non seulement man du ma ko raté mais suñ kër duñ ko rate suñu koñ aussi duñ ko rate amul sama kenn koo xam ne dinaa ko fréquenté muy raté Abba j'en discute tout le temps avec les gens Abba nekk na koo xam ne kii euh, jéewul ci film mais ce qu'il fait sur plancher nekk na loo xam ne c'est extraordinaire man dama adoré imagination adore ce qu'il est en train de faire vraiment Abba je l'encourage di ko ñaanal encore mu gën a gudd fan ne fi di ñu reetaanloo parce que le rire on en a besoin aucun médecin ne peut pas traiter un malade pour mu reetaan mais quand Abba vient c'est le médecin des médecins il fait rire tout le monde Et ça, c'est très bien pour nous tous e c'est très bien. Abba, ah je le remercie et je le félicite, je l'encourage. di ko ñaanal aussi gudd fan ak wér gu yaram. mooy li nga wax gudd fan boobu lañ koy ñaanal ak wér gu yaram muy suñu rakk muy nit ku baax muy nit ku mm. humble muy nit ku mm. modeste muy mm. nit koo xamante ni dafa jox ñëpp cër. surtout man. Oh. il me voue un respect boo xamante ni damay naan pourquoi c'est quelqu'un koo xamante ni bay tey talent. dañ koy natt fu sore te li ma gën neex ci moom je le vois quelqu'un qui est ambitieux oh. malgré lu muy def rek mu ngi xool les plus grands comédiens internationaux en plus il ose et qui ose gagne Abba bonne continuation à toi l'autre gosse là Diaw Ketchup euh, Diaw euh, bala may wax ci moom sax damay del si tuuti ci Mor Kàmm leelam boobu ngay gis mhm. fii la ko imité parce que dafa watu est que xam na sama leel <laughs> moo tax boobu lay deme mais dina ñëw bon mais euh, Diaw Diaw sama soxna moo ko bëgg. sama soxna munoo teg leneen te neew la jaw ketchup bon xaw ma nag ketchup moo ko neex. xaw ma jaw ketchup u jaw ketchup ce qu'il de faire mais en tout cas moom tamit maa ngi koy souhaiter euh, longue vie aussi ak beaucoup de talent mu gën a yokk encore talent mais en tout cas. il est bien pour le Sénégal. muy beneen jeune boo xamante ni malgré son talent malgré son succès malgré tout ce qu'il fait muy nit koo xamante ni su ngeen jàkkaarloo woon du siggi xool la man naw loolu trop ci moom di ko naan le Sénégal a besoin de jeunes comme ça et di ko souhaiter une très bonne continuation waa ju baax nag demal nga seeti Ibra nga jox ko àllarba bi dafa jot na. dafa jot voilà. parce que ku ma gis dina ma ne ndax mu ngi ñëw di la seet si. Mhm. waaye dama leen di ñëwagul ba tey rek. dina ñëw waaye xam naa ni dina ñëw. dina ñëw xëy na doole ji mu nar a ñëwee. moo bari sax non doole ji mooy bari ak tabaski bi ak bi sax xam naa ni doole lay ñëwee. merci beaucoup. mat na <laughs> naw mi yaakaar naa ni image yi ñu waroon seetaan euh, egg nañu ci j'espère bien.